هو الجوهر المكنون والسبب الذي فلولاه ما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل ال... السلام عليكم وعليكم السلام maa ngi nuyu ñi ci salle bi yépp di nuyu Sey Habib may baayam di nijaayam muy sama sëriñ ñetti cër yooyu ñu ko ki ko am ci moom mooy Mansour Mbaye du nuyu bu baax Ache Malick moom nekk ci wetam may baayam du nuyu Habib nga xam ne maamam la nu ma tudde bi Alaaji Mansour inspecteur tarixa Cheikh Seydi Ahmed Tijaan ba du nuyu bu baax Cheikh Umar mii xam ni baayam maa daan jële añ quatre-vingt-dix-neuf rue ko sama bopp yóbbu ko sëñ Moustapha Sy Jamil fan rue quinze angle seize maa ngi nuyu dur sàll soxna Safiétou jur sëñ Amat Sy maamam lépp lu mas sol moo sama bàyyi koy nuróole kon ñii de xam naa leen di nuyu bu baax Ablaye Diop Matar Matar maamam jiite na jumaa Cheikh Seydi ak kii sama wet di Abdoul Majid Sène mooy man may moom Habib nag juumoo ba nga ñëwee sama kër ma dugal la sama chambre à coucher nga ne ma dafa am lu nu bëggal sa mag ja sa xarit ba sa soppe ba sa sëriñ ba Seydi Mouhamadou Mansour ca im fag ma ñëw ba sa kër wax si la ko moom ci boppam moo ma ni woon Mansour mbay ma ni ko si mun ma bul manqué di sama mbooloo yàgg rawaan lu war a loolu ma wax ko dama ànd ak moom lu yàgg saal bii maa fi mag sëñ Mansour maay tofoom vingt cinq la ma nekk vingt sept moom ak ki xam ne tey moo toog ci xilaafa Cheikh Sidi El Hadji Malick al Sidi Boubacar di Cheikh Seyd Ahmed Tidiane si El Maktoum mosuñu wute ci dara maag ñoom daraa gàttal nag gàttal bi mooy lan mooy ma ngi lay gis nu koy gis waaye day bëgg na bi nekk Mansour Mbaye nga ca mbooloo mun lay wooteel ay sëñ Mansour a bi tey ca barzaq lu waral loolu mooy léppam dama ko fekki ba muy ka Kaolack quartier maag moom a ànd en 1945 kon loolu yàgg na ba Cheikh Sidi Ahmed Tidiane si El Maktoum di dem yóbbaale gaynde nga keer di ko joxi Kamal Abdel Nas boobu ambassadeur la maa nekk ca aéroport ba maa téye woon daanaka gaynde kon ñii dama yàgg ak ñoom yàlla xam na ne maa ngi am béréb moo waroon dem ñëpp ma fay dee waaye lëfu sëy affaire sëy Mansour ma ko manqué lu ngeen xam ci teraanga diggaale naa ko ak Seydi Mouhamadou Mansour waaye dama leen di wax ñaar rek bàyyi kàddu gi ak ñi ci des benn bi 2000 dafa ñëw président de tous les Sénégalais gagné réew ca man ma nekkoon socialiste avant Abdou Diouf directeur rajo woo ma ni ma Mansour Mbaye ma ne ko naa mun ma amatoo droit wax ci télévision ma ne ko ah lii fu mu jógee mun ma rajo rek ngay wax léegi ma ne ko baal naa la rajo télévision maa ngay dem sama kër. gore gore li léegi man la ko def ma ñëw ni ko sëñ Mansour léegi dootu wax ci télévision mun ma ku la ko la ko wax ma ne ko ku wax Ibrahima Ndiaye directeur télévision la mun ma ne moo léegi Ablaye Wade. waaw loolu secrétaire bi jox ko Ablaye Wade mun ko Ablaye Wade yaa ni Mansour Mbaye dootul wax ci télévision Ablaye Wade ne ko bindee si waxuma ko ak sama wëllëre ak yow mun ko ma jox ko sax Mansour Mbaye ma ne ko ah si chef de l'état man ma la ci sama yoon daal di ma jox Ablaye Wade Ablaye Wade dama santaane ma ko tey santaane ma ko ëllëg su gàmm gi passé dama la daan jox ci télévision ak rajo ba nu joxaat la ko man duma la xañ sa place kooku mooy Seydi Mouhamadou Mansour ànd naa moom it ñun ñaar rek ci oto ñaar ñaari gendarme ko mu ñëw bëri siis benn waay dàpp ko ni ko sëñ Mansour man yow sa baay rek laa gëm Sidi Boubacar waaye noonu may génne sama kër ne mun ko lu tax lu mun ko dama fayu loyer mun ko su loyer yi ñaata la mun ko deux cent vingt cinq mille la nu may topp mu làmb <laughs> ma jox ko cent mille deux cent trois cent quatre cent cinq cent waaye ba muy dem tàggu mu sax kon nag si yàlla yàlla guddal seen fan lii ngeen def jële ko ci seen ndigalu baay yi di Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mi xalif général Tijani yi jële ko ci Seydi Abdallah Al Amin ak Seydi Aboubacar ak Maodo nu jox la ndigal sëy Habib yow tam Cheikh Ahmed Tidiane sa sa mag sa xarit sa soppi jox la ndigal ànd ceeg Seydi Jamil yéen ñëpp ngeen toog nii bég naa de mhm. waaye Habib maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla may la gudd fan yàlla may la wér amiin amiin ndax day sa bàyyi ngi jaroom dul bég na de mhm. ndax ku xam sëñ Mansour xam ne lii ku ka defal mhm. dina bég fu mu tëdd ca bëgg jaroom dul kon nag si yaag sa rakk yu baax yii ak sa baay yu baax yii yal na yàlla guddal seen fan. amiin sa maam Alhaji Abdoul Aziz xalifa ba moo ne ku yëkk sa loxo ndeyjoor ba sa kaw ni faalewu ma kenn yëkk sa loxo càmmoñ ñi kenn faalewu ma sa maam Alhaji Abdoul Aziz ne yëf yi kenn yorewu ko kenn rek ko yore di ko def lu ko neex ndax mooy buur mooy sunu Boroom tabaaraka wa taala mooy yàlla kon nag si lii nga def léegi ré réy na ci ban kontaane ci man li leen ma dàqal milliard ndax man nag nu ma mel ak réew mi fu nu de ma dem ñun noonu jox man suñu bay parole bu dee parti politique yi ñun dinañ ko jox parole bu dee diine ji bu dee kër Xaadim Rasuul wala kër Cheikh Saadou Habib wala Ndiassane wala feneen ñun nañ jox man suñu bay parole kenn waralu ko ku du Cheikh Sidi El Hadji Malick man lu ma am gannaaw yàlla ak yonent ba kenn may moo ko ku du Cheikh Sidi El Hadji Malick booba rajo amul <laughs> télévision amul kenn rek moo daan wax ñëpp di dégg maamu Ablaye Diop Maxtaar mi toog ci suuf ak ñëpp muy kan mu Cheikh Seydi El Hadji Malick kaddu yomu daal di génn ci làmmiñam kenn daaw ko ko jottalul ku dul Amar Mbay sama baay Amadou Mbay Bawdo sa baam alhaji Abdoulaye Sy rek la ma waxoon rek laa lay nettali foofu dafa ne ma Mansour ma ne si mu ne ma bul naw kenn ci kër yu rafet yi ak oto yi ma ne papa loolu de moo moo xew mu reereem ñu gàtt ñooñu ni ma loolu du man ko papa waaw lu ñuy nawee nit mun ma mooy ñu ànd ñeent fukki at ngir yàlla ca tàggoowulu kookoo jara naw mooy sama diggante ak yéen allahuma salli ala sayyidina muhammad هو الجوهر المكنون والسبب الذي فلولاه ما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل ال...